juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd noon xibaar xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. coronavirus ñeent ñi ko amee woon ci réew mi kenn ki wér na day génn hôpital seet nañ ko ñaari yoon doo ko yeggee xibaar bi taskatu xibaar yi mu des ñeneen ñett ñi nga xam ni ñoom ñoo ko amee ci àddina bi léegi jàngoro ji nag laal téeméeri junni nit ñetti junni ak ñeenti téeméer faatu ci waaye dinañ leen wane du dara bus ko méngaleeg grippe. imaam yi lew na ñaseen nag ni yar bu dal la bu jóge ci yàlla sunu borom ndax càggante ci réew mi ba ay nit ay tubaab jóge bitim réew ñëw fii naan nañ dagal góor jigéen beneen imaam bu ci ràññeeku tey jii ci xutbaam di imaam bëtu Mbay moom mi nga xam ni ci jullik àjjuma gi daa wàcc minbar ba jox ko ab docteur ni ko na wax ci koronaa bi mu def ci bayaan bi Baara Ndiaye ci wàllu politique ni mi ngi xaar citation directe bi war a jóge ci Mimi Touré mu ni nag li waay di wuyoo da koy eh, nuru moom mi toppoon Karim Wade dafa war a sellal na mu yore ca conseil économique ab Diouf Sarr it li ko Aïda Mbodj xëy wax fii tey jii ci rajo bi metti ko ni nag eh, dafa war a abal fi mu ne nii Eva Marie Coll Seck ba jàngoro ji weesu ndax wane na tëleem metti ko ba chef de cabinet moom itam di ko dabu di tontu. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram match yu mujj yi phase lig Ligue 1 Tëngéej moom mi jiitu kenn mënu ko dóor boobee ba léegi di fubal ci kanamu publicam tour du web arobase bonne santé gangi gi Ismaïla directeur réglementation touristique waxtaanee secteur bi ak jàngoro ji matuwaay yi ñu war a coronavirus la ñuy tàmbalee ak euh, tey jii li ci mujj xew di xibaar boo xamante ni bu neex la sant ñaan muy mu euh, ka nga xam ne moo ko ko France di tubaab bu góor ba nañ ko seetaat ko nee nañ directeur de cabinet ministre de la santé sànq ci ndaje meeg taskatu xibaar résultat yi nag institut Pasteur testé na ñaari cas suspect yoo xam ne dañ leen prélevé ñaari cas suspect yooyu seen résultat dafa négatif ñu teste waat ki nga xam ne moom la ñu njëkk am comme patient bu positif ñu am ko keroog altine la 2 mars ñu hospitalisé ko maladie infectieuse kooku testé nañ ko ñaari yoon ñaari yoon yiñ ko testé yëpp dafa négatif donc kooku wër na dina génn ci waxtu yi ci topp may wax rek ne Sénégal tey amul benn cas ñu ngi léegi ci ñetti cas mais dañuy maintenir vigilance bi parce que niñ ko waxee rek ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi continuer di wër cas contact yi ministère mu ngi ñaax askan wi di ñaax personnel de santé bi pour que ñu gën a vigilant ndaxte xeex bi dafa laaj ñun ñëpp ñu ànd boole xol yi boole xel yi boole aussi xam-xam bi pour que ñu mën a mucc ci feebar bi léegi tolluwaay bi ci bitim réew téeméeri junniy nit wopp ji laal na leen ñetti junni ak ñeent ñoo ci faatoo waaye ku ko xool ba xool ko li chiffre bi rëy rëy mënees na ko méngaleeg yeneen jàngoro yoo xam ne ñoo ko ëpp fuuf li muy faat tolluwaay bi ci àddina Salif Sow. ci ajuma bi ñu amee coronavirus ci ajuna bi yëpp seenu lim egg na téeméeri junni ñetti junni ak ñeenti téeméeri doomu aadama feebar bi lee faat na leen juróom-ñeent fukki dëkk ci àdduna bi yëpp feebar bi seetlu nañ ko fa OMS di ñu yore wàllum faj mi ci àdduna bi yëpp nee ñu am na ñaar fukki vaccin di garab yoo xamante ni jàpp nañ ne bu sottee war naa mën a faj feebar bi te gaaña ña nga cay liggéey ñi amee feebar bi genn wàll ga tamit am na ci xabaar bu dal xel maanaam wér nañu coronavirus bu fekkente ni dañ koo tëkkaleeg li ñuy wax grippe grippe moo ko gën graaw garaaw ndaxte at dina japp juróom million doomu adama dina faat juróom ñent fukk jooni ya sa ñom japp juróom benn témèr ak juróom fukk jooni ya at mu nekk Chine jamono ji ci coronavirus bi amna témèr ak ñen fukk ak ñetti ka ci ajuma bi yu bes italy mom ñen fukk ak juróom-ñeent doomu adama ñak nañ fa seenu bakkan ci benn bëccëg kep mu tax ba lim ba egg ci témèr ak juróom ñen fukk ak juróom-ñaari doomu adama yu ñàkk seen bakkan italy ba fa fièvre bi ak légui Serbie Slovaquie peru ak Cameroun ñom wañ nañ seen ka bu ñëk Hollande mom wañ na benn itam bu ñëk bo xamanteni fièvre bi lay waxaat na ko Amérique foofa président bi jël na ay motuwaay génn na ci xaalisu réew mi lu toll ko juróom-ñett milliards yu teg ci ay dollars ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci secteur tourisme bi ak wàllum dem dikk bi ci avion yi. tey jii ci jullik ajuma gi xutba yu bëri waxtaane nañ fa jàngaro jooju ca Léona Niassène nag euh, dañoo jàpp ni sanction la bu jóge ci yàlla sunu borom yar bi dal nag ngir ñu fàttali ko bu baax a baax rawatina bi ñu sàgganee fii ci réew mi ba ay nit ay tubaab jóge bitim réew ñëw di wax waxi daganal lii di góor jigéen Ibrahima Diame. xutba imam grande mosquée bu Léona di jolli ci soror ya ginnaaw nag ñaari rakka aljuma ci li imam bi deful ay ñaan jëmale ko ci li fi jëlee coronavirus waaye moom dafa jàpp ne feebar bi la sanction la ci Sénégal ak àdduna bi. feebar bii nag sanction pour Sénégal. sanction la pour àdduna imaam Arabi Niass di naqarlu ni nga xamante ni ay kilifa yu jóge bitim réew sañ a ñëw Sénégal ñu leen fiy dalal ñuy défendre lii di góor jigéen Sénégal li fi nekk di julli ak tubaab autorité jógee France wala Amérique wala Canada ñëw naan bàyyi leen góor jigéen loolu jàppul na kenn benn ministre wala président de la dem Canada wala mu dem France ne leen hee tuubu leen yéen bàyyi leen nangam ñu naan ko préparé pour loolu loolu nag yooyu ñu jël sunu gis yi aj ko ci réew mi aj ko ci France wala Canada wala nangam looloo tax yàlla indi musiba ni ki démb nag mu amoon ay kilifa diine yu ministre de la santé dajale ngir ñu ñaan pour li fi yemale feebar bile waaye moom imam grande mosquée bu leew na seen jàppul ne seen ñaan yooyu le dinañ ci mën dara ñooñu ngi gis ci télé day kon yaakaar ne bu ñaanee yàlla yàlla yàlla yéen si taxaw nekkuñ ci nag ci yeneen juma def nañ fay ay ñaan ci aljuma ji leen ngir feebar bi lee mën fi jóge hôpital régional itam jël na ay motukaayam teg dispositif bu am solo bu nga xamante ne képp kuy dugg ci hôpital bi dinañ la contrôler rax ci dolli mesure de prévention yiñ fa laal Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. jumaay Scat Urbam tamit waxtaanee nañ ko fa tey jii muy mbiri wiris moom nag imam bi moo def loo xam ne du koy faral de gis. imaam Seybatou Mbaye ndax euh, dafa wàcc minbar ba nag ndax nee na mbir bul jox sa waay joxal waayam te moom comme xamul xaala wala kasiran ci jàngoro ji mu uti koo xamante ne ni xam-xamam màcc na ci bu baax a baax wàcc minbar bi docteur ba yéeg wax ci jàngoro ji lu waral lu ni mel lañ laaj oustaz coronavirus bi dafa lëmbe àdduna bi yëpp euh, ñëpp a ngi ciy wax Sénégal aussi des donc kon nag euh, sermon yi passé yëpp si laa ko daana ko accès ci prévention ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ngi jàngale mais nag looy wax ci mbir rek li olaf di wax naan loo xam-xam dem ma dem ba gën la xam dem kon ki nga xamante ne moom ci loolu lay yëngatu di un médecin moo lay mën a gën a xam bu baax virus nan lay déplacé woo bu toogee bërëb nan la fay toogee donc imam man na ko def mais comme doo médecin man nga wax rek alxuraan yàlla nee na yonente bi nee na mais ki la gën a xam mbir mi nga jox ko ko te aussi mooy gën man communiquer ko yow dañu toll ci période boo xamante ni nit ñi waruñu leen ragal loo war nañ leen communiquer juste et vrai bon kenn warul toog benn bërëb rek créer ay mbir yoo xam ne amul donc li ngay wax war nga ko xam parce que alxuraan moo ñuy wax ne bu fekkee dañ leen indil xibaar na ngeen dem si source bi donc loolu moo ma inspiré ma ne tey de dinaa oo benn docteur mu ñëw waxtaan ak mbooloo mi nga xamante ne nit ñi nañ dal te aussi réaction yi macha allah ñëpp ñoo ko rafetlu mais vraiment lii daal warul di war na di am temps en temps ñu au médecin ko spécialisé aussi yu demee noonu di waxtaan ak mbooloo tey daal loolu laa ci jublu woon te yaakaar naa ne euh, fidèles yi am nañ ci satisfaction totale. gindi mbooloo ma rek ko ci jublu woon seeti ku ko gën a jekku waxtaanee mbir ma moom euh, imaam loolu la indi ci ay euh, leeral waa Sédhiou ñoom nag nee nañ fi mu ne nii ba léegi ñu ngi xaar matériel. la fa nekkoon jamonoy Ebola daal la ñu ne ba léegi dara doolee ko wucc seen médecin chef nag ñu fàttali leeral itam ni moom mooy euh, njiitu SAMES démb ci guddi heure bi dégtal nañ leen ay kàddoom mu doon wax ni nag euh, ñu ngi ñaawlu bu baax a baax amateurisme bi mu yëkkati kàddu yi ca fa nga xam ne moom moo jiite région booba nekk fa MCR médecin chef de région Amadou Yéri Camara ci micro Max li Euclide Kamfani jumtukaay yi ñu am nag mooy yi nga xam ne amoon nañ ko en 2015 ci Ebola ça veut que am na gap gap boobu ñu ngi xaar ñu complété te buñ ko complété dinañu tax ñu mën a agir maanaam lu xew rek ñu mën a taxaw maintenant nag ñu xam ne rek agent de santé yëpp xam nañ feebar bi te ñu ngi bàyyi xel bu baax feebar bi bu ñu gisee signes yooyu ñu yëglu pour que ñu def li ci war maintenant nous demandons le renforcement des équipements ak ay directives yu leer par rapport ak ni ñu war a doxalee am na ay bërëb yoo xam ne dañ ne ko identifié woon pour euh, ku am feebar bi ko gisee ñu mën ko isoler le temps que ñu woote te yooyu yëpp dinañ ko féddali événement religieux yi nga xam ne moo ëpp solo ñu tollu ci jànkoonteeg feebar bi koo xam ne yëg nga feebar sa yaram sa yaram a ngi tàng wala yaa ngi sëqat wala yaa ngi soj nga jéggal askan bi bañ a créer benn tiitaange wala benn risque même boo yaakaaree ne yow du feebar bi sax ñu jéggal la rek nga bañ a ñëw si nga toog nga ñaanal ñeneen ñi koo xam ne tamit dafa jege koo xam ne amoon na feebar boobu wala nga jugee benn dëkk boo xam ne yow fa nga dëkk wóor na le na am na ñenn ñu am feebar ñooñu li gën moom mooy ñu bañ a ñëw parce que loolu moom mooy sauver sa bopp sauver tamit askan bi bu loolu weesoo nag ñi nga xam ne ñu ngi fii yëguñu dara seen yaram ñu xam ne feebar bi li koy joxe moom mooy léegi nag prévention bi ëpp solo moom mooy ñu wàññi saafonte yi nuyoo yeeg jege yoo yeeg ñu wàññi ko te bu ñu gisee kenn koo xam ne yaram dafa tàng wala mu commencé sëqat non seulement gi sëqat war na utiliser mouchoir wala yaramam pour mën a wàññi tisli mais en de ça war na lu mu gën gaawee rek mu dem gis bërëbu fajukaay yi fay nekk. mu nekkoon euh, médecin chef de région bu Sédhiou amadu Yeri Camara ñu wax léegi vétérinaire yi ñoom itam de mala yi nga xam ne dañuy euh, faral di leen faj am na ci yoo xamante ni dañ koy am looloo tax nag euh, ñu daal di digle képp koo xamante ne ni yaa ngi jëfandikoo daal lu ci mel ni ginaar wala xar ndax nee nañu ginaar nag dund bi léeg-léeg la muy dundee day faral di jàll si ci nit ñi. nga di ko togg anam wu rafet euh, troisième rentrée solennelle école inter état des sciences et médecine vétérinaire mu amee woon fii ci tooke yi faral di nekk ci garab yi ñuy jox mala yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo loolee di ab bu ñu doon waxtaanee si ubbiteegu at bu bees bi ci école bi jàngale lépp lu jëm ci wàllum mala ñiy yëngatu ci lu ni mel di ñaax ñiy jëfandikoo produit yooyu le ñu def ndànk lu ci mel na nen ak ginaar docteur Teko Agbo vétérinaire. les aliments les plus touchés c'est les œufs. bëri na ay de chair yoo xam ni euh, ñee leen ci defar muy ña yar ginaar jox ay produit ngir rek mën leena jaay ci diirub ñent ci ay bëss mi loola nak dafa daal di kon indi ay jafe-jafe ndax garab yooyu ñu leen jox kon fay japp seen foi té bu jappé seen foi mën na indi ay jafe-jafe ci seen wërgu yaram te bu ko nit ki lekkee mën nako indi lay jafé jafe-jafe wàllu nen ak walu poulet de serre yi faawu taxawat bu baaxa baax xol naka lañ ko jëfëndiko ngir moytandiku jokkalante jangaro bi naam ay loi amna wante ngir ñu dëgmal ko moo des moo di yëngu ci walum mala la di ñaan ñi nga xamanteni moy nguur gi ñu gëna yëngatu xol ku bok ak ku bokul ci secteur bi yalla sey yamba kabouré momo directeur général école bi c'est à plusieurs niveaux je crois que le conférence dafa bari ay euh, mbir yo xamni ñi fi doon def conférence wax nañu ko ngir ñu xam amul ben réglementation waye dañu wara waxtan ak nit ñi métier vétérinaire du lo xamni ni des ko wara sofantal métier le bu am solo té itam dañu wara gëna sax nak tagat bu baaxa baax ay vétérinaire dañu mën a wasaaroo ci biir dëkk bi ku ci nekk fa nga nekk di mëna tax ba wa réew mo ñu xam lan mooy ñu un bon maillage ñi seen xam-xam màcc ci mala yamuñu ci ndax nee nañu lépp lu jëm ci wàllum mala dañ ko war a respecté jàng ko rawatina nag jamono ji nga xamante ne àdduna yëpp mi ngi jaaxle si jàngoro ji di coronavirus. mu nekkoon pàcc bu yaa bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon euh, jàngoro ji dinañ ci dellusiwaat ci njeexiti xibaar yi ak waxtaan wi gan gi di euh, directeur de la réglementation touristique ñu war a waxtaanee secteur bi ak matuwaay yi ci war fukki minute. ak ñent mo teggu ci juroom ñent waxtu ci radio Futur Media. radio askan wi. sigi Sigicoor ni nak euh, nu la neex toge ci dekk ba occupation anarchique bi dina dak dina ci jokk euh, fan yi ak ay opération de désencombrement wut ay ndaraan yoo xamanteni ni ñoom ñooy yëkkati ñi nga xam ne fa ñu nekk waruñu faa nekk bu ko defee dëkk ba set neex a dem neex a xool mu ni itam fas nañoo yéene jël dogalub euh, daal di ubbi foofe ab fourrière boo xam ni. ci la ñuy euh, yóbbu ñenn ñi nga xam ni buñ leen jàppee te amuñu fu ñu leen yóbbu fa lañ leen di yóbbu ñu daat ci ànd ak leeral yi Lamine Ba. ci li jëm ci dogal désencombré dëkk bi maire bu Ziguinchor mu ngi yoroon projet bi ci biir tiroir yi waaye ne ne lim doon xaar mooy mu am cadre juridique légal bi koy jox autorisation ngir mu def ko dafa mel ni mën na ko def léegi ndaxte conseil municipal bi nga xam ne mu ngi si doon daje ànd na ci Abdoulaye Baldé. teg na yeneen taxe yoo xam ne ñoo xam ne dañuy bàyyi seen camion yi seen auto yi ñu yàgg si kër yi yàgg si si tali yi nekk ay yooyu yëpp aussi dinañu am jël ay matukaay pour que ñu yóbbu leen fourrière ak ñu jël suuf si di tabax jël suuf si di ko tuur si mbalit bi di ko di ko tuur si tali bi ou bien ay béton ak leneen loo xam ne day encombrer voie publique yooyu yëpp jël nañu ay matukaay donc ay ay mesures yu bëri jël nañ ko tey d'abord dégage désencombré génnee mbalit yi. Ziguinchor nag foo jàdd dajeeg mala yi nga xam ne ñu ngay dox ci tali yi léeg-léeg muy faral di indi ay accident maire bu Ziguinchor nag loolooy beneen xeex bi nga xam ne nag sumb na ko nee ne fas naa yéene taxawal ab fourrière municipale ngir jëmmal dogal boobu. voté nañu délibération boo xam ne dañu permettre nag yi fas yi béy xar yoo xam ne ñu ngi wëndeelu si biir dëkk bi ak ak xaj yi ñu ma bu leen mën bu leen jàppee ñu mën leen yóbbu su benn fourrière bu pare képp koo xam ne am nga xaj mbaa am nga euh, béy euh, mbaa xar buy dëkk bi ñu ko jàppee da dem foofu di da ngay fay mu doon ay mesures yi nga xam ne ñoo ko jëlee ci conseil municipal bi nga xam ne ñoo ko fi doon amal ci ndaje boobu nag jot nañoo dugale ñaari conseillers municipaux yu bees maanaam kii di Dieynaba Mané ak Mame Ali Seydi ñu wuutu ci nag ñi nga xam ne ñoo di Mariam Diédhiou ak Samba Gakou nga xam ne ñoo nekkoon quatrième ak cinquième jamono ji ñu dudd àdduna Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Media. mu ngoog bëy yu gàtt yooyu taxawaalu ca mbeddi Casamance kon dina dakk ca kilif dëkk de lañ jëm dëkk bu nekk ci euh, région bu Louga ñooñee nag euh, ñoom fi mu ne nii forage ba mu doon génne ci xaalis ba toll ci ñeenti million la ñu ni nag euh, dañu ko détourné loolu la ñuy ñaawlu ñu ni maire ba itam loxoom setu ci nde bëgg na fi mu ne nii teg ko ci ñoo xamante ne nii ay nitam lañu Abraham Paul benn pàcc ci askan gi nga xam ne ñoo yeewoo ci village yu Cliff Deg 2 nag ñoom dañoo mer ba futtu jëmale ko ci seen comité de gestion bi nga xam ne mooy yor forage bi ak seen maireu dëkk bi askan wi mer nag di ñaawlu ni nga xam ne noonu la ñu yoree seen forage bi dara baaxu ci nag ay mbuxum rek la ñu yoree koppar gilee ñoom sax ñuy xam la ne comité bi maire bi moo ko imposé. Adama Ganil Ba chef du village Cliff Deg 2. waxaat nañu bi la superficie boppam ak seen énergie boppam moo waxal seen bopp. nangam ak nangam xamuñu fan lañ dugg léegi loolu il faut ñu def ko ñu xam xaalis bi fan lañ dugg te kayit am nañ fii ay yeneen bor forage yi nga xam ne mu ngi fii te loolu yëpp yëg nañ ko ba léegi kenn kenn waxu si dara bu toll na si quatre millions cent quelque. askan wi nag ñoom lu ñu bëgg mooy ñu jëlee fi comité bu bon bile ginnaaw bi nga xam ne nag xamal nañ ko sous préfet bi bii yoon nag ñuy yuuxu te di wax ne autorité yi nga xam ne ñoo ci mën dara ni ñu ñëw jàpp ci ndax ñu mën a xam fan la responsabilité yi nekk te seen forage bi mun a dox ni mu waree. jafe ko su dee dinañ keek benn nit bu xam ne mu ngi bokk ci village kilifa dégg déré wi nga xam ne nag ñooy ñaawlu li nag di wax ne responsable bi kenn rek la mooy seen meeru dëkk muy meeru góor yi Ba moom nag moo nekk di bëgg a dugal ay politique jëm ci gestion wu forage bi te gestion bile amul lenn loo xam ne politique war na cee laxasu te ñoom dinañ ko xeex ba fu mu yem mu daal di neex mu nekk Abraham Paul Pouy kilif deg 2 RFM. maire Mbula boobu nga xam ne nag euh, moom euh, la ñu ci tudd daal di nay euh, weddi ba mu set li nga xam ni teg nañ ko ko ci tuuma góori ba ni nag comité de gestion bi ni ko teg si waxee noonu la ñu ko defee ci kanamu préfet ñu déglu ko ci micro Abraham Paul texte yi ñoo ne village yi nga xam ne ñooy jëfandikoo ndoxu forage ba village bu ne day am benn délégué kuréelu sàmmkat wala maraîcher wala ñeneen euh, nit ñu fay def benn activité ñooñu war nañ am ñaari délégué li si des conseil municipal ba moom tamit dafay am ñetti délégué ci noonu ñu créer ñetti poste yi nga xam ne ñoom ñooy bureau bi muy présidence secrétariat ak trésorerie présidence bi un conseiller municipal rek moo koy yor trésorier yi ak euh, secrétariat yeneen délégué yi nga xam ne ñoo jógee ci village yi wala ci yeneen kuréel yi ñoom ñoo koy nekk loolu nag moo am ci forage yu nekk biir commune Mbour yëpp buñ koy installé sous-préfet mooy convoqué nit ñi hydraulique ñëw ñun tim ñi ñëw en tant que représentant de des populations buñ ñëwee ñu jéem a respecté loola loola nag respecté nan ko à la lettre au niveau du forage de Kifde 2 sous-préfet boppam moo ko installé leneen luñ fi wax nag lu dul loolu mooy wax lu la neex rek waxi picc rek man noonu laa ko mën a tuddee li ci des moo di ne euh, renouvellement bi mooy euh, bu daal jeexee dañ koy renouveler waaye même buñ koy renouveler waat du génnaat ni ma la waxee. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu tàbbi ci wàllu politique ak euh, coow li dox diggante Bara Ndiaye ak euh, Aminata Touré président conseil économique social et environnemental nee na mi ngi xaar citation directe bi mu wax ni dana ko ko jébbal ñii laam-laamee naan dafa daw ak dafa làqu ji nee na xëy na biroom liggéey gont ñibbi këram di déglu nag ba xam euh, dinañ ko woolu wala déet waye dadi nak eh, mom Mimi Touré mi ragatoon Karim wad ci eh, yorin wu rafetut fimne ni lumu yor da ko wara yor yorin wu rafet te itam amna luñu lu ko dal lo xamanteni ni lu mëna ñak la ñu déglu Baara ndjay ci jokkom ci téléphone beeg Makuro Diagne. xana xaar eh, man sax citation la dégg waaye jotaguma citation bi balaa ma ci mën a yàbbi faaw ma jot ko ba pare waaye nag gis naa sànq ci ngoon ba léegi ñu naan waa ji fu mu dugg ak daw naag kenn gisu ko maa ngi nii sama kër ginnaaw bu ma yendoo sama bureau liggéey fa sama liggéey bon man nag euh, dama jàpp ni question bi sax dafa romb man euh, euh, affaire nombre bii la jël ak kii romb na foofu ndax ku ne xam na ni soxna Aminata Touré maanaam dafa nekkoon koo xam si dañ ko ràññee woon ci li ñuy wax gestion sobre et vertueuse mu jiite woon fi track des biens mal acquis lu ne mu def ko fi nag ba tëj fi Karim Wade ñëpp xam nañ loolu waaw ginnaaw bi nag bu ñu ko joxee kër gu mel ni conseil économique et social mu am noo xam si daf ko ne yore te dëppoowul ak la mu doon mbubboo ak la muy wane. dafay nekk loo xam si lu am lu doy waar lay doon. loolu moo tax d'ailleurs ma interpellaat ko nee naa ko bu weesoo lim beeg yooyu. nañu wax moom kër ga mu yor nu mu ko yore ndax dëgg nañ fi ay mbir yu day waar. kii doon chef de cabinet am kii di Bara Fall moomu nga xam ni fu na jaar na fa jaar na ci Issa Mbaye Samb Modou Diagne Fada tey jii mi ngi ci soxna Aminata Touré nga xam ni démb moo doon wax affaire transhumance ak gestion sobre et vertueuse même ni moom dépassé na cap boobu fi mu toll nii mooy ku mu gis jàpp ni xañ na ëllëg mën na laa liggéeyloo rek ci ambition présidentielle bi moom mu jël la teg la ci wetam di la fay nag loo xam si méngoowul ak sa jàng ndax Sidi Bara Fall moom nga xam ne huit huit lay dawal salaire ba ñu dégg ni moom lañ koy fay jéggi na daya bu ma ko tuddoon tey di nga li ma wax nii day dara par rapport ak li xew conseil économique et social buñ ci xuusee di xam ni li ma meneen cong mi tey jii ci suba ci RFM matin gan gi moo ko def di Aïda Mbodj moo ni nag Abdoulaye Diouf Sarr daal nii mu yore wàllu eh, coronavirus ji na eh, Awa Marie Coll yore woon eh, Ebola jaa ko gën a dal xel moo tax président da ko war a teggi bañ noppi ci lii mu indiwaat ko ñu wéy di politique. loolu nag neexu leen tax nag chef de cabinet wu ministre bi indi ci leeral dañuy déglu Ibrahima Fall ci jokkoom ci téléphone beeg Pape di ba wax ju mel noonu. si jamono ji nga

place pour faire. loolu la waroon dem et que disposition bobu, de nekk loo xamee ministère de la santé de ko teg ba mais de si waxtaan ak sous région bio, yëpp boo sous région aussi même disposition bobu, ngay gis parce que les lépp plus nid def rek dañ koy même union africaine non lañ kay def ba organisation mondiale de la santé valide validé liggéey boobu rafetlu ko déclaration et déclaration politicienne la parce que li si xelam moi mu profité aussi occasion yi jéem a yàq deru Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf de nag moi dëgg moom ak ñoom ñaar ñuy waxee ak fu ñuy taxawee man li ma gëm mooy Aïda Mbodj du baal ba ilaa yow mi diin Abdoulaye Diouf Sarr parce que pour moom Abdoulaye Diouf saar moo tax ñu dàq ko ci conseil départemental ba muy nekkoon mooy ba muy cumuler cumuler ñetti fonction ñu dàq ko benn bi mais du Abdoulaye Diouf saar dëgg-dëgg loi bi moo waxoon képp ku cumuler ñett mandat électif loi bi mooy teggi benn bi donc Abdoulaye Diouf saar dafa appliquer la loi loi bi loi moom dafa metti rek waaye ah ku mu dal sa kaw rek dëgg-dëgg nga nangu ko nag fekkee ni loi la dëgg-dëgg nga nangu. nuyuwaat. maa ngi laa fay alaaji Makumba. ñu koy tàmbaleek euh, Ligue Pro suba ak jàmm. Mhm. phase aller di jeex. suba day daal di kon jeex takk nag ci euh, dem gi mu des nag ñeeku gi boobu nag ba ñu ko soobee ba léegi équipe bi ji Teungueth FC moo ca euh, jiitu moom i nag ca këram ca Ngalandou Diouf ta Teungueth googee fa lay jeexalee giile jongante war ca daje ki nekk ci mbaba daara yi di SNEPS excellence ñu gën a am xabaar ci googee journée ak Adji Marie ca Rufisque Teungueth FC dina dalal SNEPS excellence seen yéene ci biir jongante mooy amaat ndam ngir jeexal pàcc bu njëkk bi ci anam bu rafet Dakar Sacré-Cœur mi toog ci ñaareelu place ci classement bi dina am soxla bu rëy ci digganteem ak waa Casa yi ndax waa Ziguinchor yi dañoo amoon ndam ci journée championnat bee ñu weesu ci yeneeni jongante yi jàmbaar mi dalal AS Pikine ca Saly dina am jongante bu tar ndax moom ak waa Pikine noo bokk li nu bëgg mooy ndam ci ndakaaru jaraaf dina laale ak waa ñaari tali stade de Mbour moom war a dalal s Gorée génération foot moom fekk ñambuur ci Louga. nu jàpp kon aji mareem nii Teungueth FC googa moo nekk ca kaw topp ca moom ndakaar Sacré Cœur topp ca itam kii di AS Douanes génération foot mi nga xam ne moo yore raw gàddu gi ma nga ca fukkeel bi place ak euh, ñett. mbabu dara gi di waa euh, Thiès euh, muy waa SNEPS euh, nu wax itam si Ligue 2 bi ñoom itam danañu jeexal seen pàcc bu njëkk nu ni kon programme gi suba ñaari jongante la nu ca nar a tëgg Africa Promo EJ Fatick kon laale Amitié FC ak waa Jamono la ca des nag dinañu ko yëgali dimanche Linguère moom mi nga xam ne moo jiitu mooy dalal ca Ndar équipe bu Thiès FC Linguère kon moo nekk ca kaw toppati moom Guédiawaye Football Club Duc yegg si ci ñetteel bi place ci boobule Ligue 2 Makumba ñu wax ci wàllu basket eh, ginnaaw bi ñu reporté eh, NBA wu Afrique bi. ligue des joueurs bi AS Douane nak euh, mom di concentré wu ci championnat bi. ñom ñi nga xam ñoo di champion Sénégal en titre dañu kon waajaloon ngir dugg ci gogé jongante gannaaw bon ko daxé ndax corona ji nee dañuy boy ba légui di daal di kon de dol di bolo doon genn say di gëna a ci championnat bi ngir gëna wajal gogé googee jongante ndax kon bi euh, xëcc la wo xamni dafa yendoo bu dagul dina dikk tay ji Abdoulaye Diouf daa gont dem ci entraînement yi seet ndax mom mëna lancer franc niko ko gars am déet. ay joueur yu ànd ak cawarte la ñu fekk ci parke bu Marius Ndiaye diggante physique test ci wàllum système de jeu ak ay tir de point séance d'entraînement bi yombul woon lool. dàkkub lancement ligue africaine bu basketball mu nek ap ngeenel ci AS Douane suñu sukkandikoo ci Thierno Birame Nia di ap meneur. mën naa wax ne plus la won suñu moy mooy ni suñu liggéey day tax ñu gën ko def secretement bañ am ben pression moy dañuy dem pour wane li ñu mën à la fois aussi dañ naan xam nga ça na donne plus de temps pour ñu gën a so duñ ko japp non rek japp ni reporter nañ ko daal di wax non so dañ koy utiliser comme temps additionnel. mom mi lay di ailier Serigne Bamba Gueye jàpp ni équipe bi nopi woon na bép fan fànn. defuñu dara defuñu dara parce que paré won nañ pour jouer ga ñëpp buñ sañoon dañu dañuy ñëw jouer ko mais buñ ko buñ ko reporté mënuñu si dara dañ ci jéem a adapté aussi jéem a adapté wu préparé mu dañuy permettre ñu gën a parewaat quoi di pour mën ñu xibaar ni dàkk boobee am na lu mu wàññi ci ñoom Mamadou Lamine Diop arrière AS Douane. d'une part waaw xaw nañu wàññi tuuti nag parce que dafa yàlla parce que euh, yàgg nañ ko dégg tamit di yàqamte tamit xam nga mu ñëw ñu découvrir xam nga beneen beneen type championnat xam nga wax du ñu gën a permettre sax may ñu gën a mën a defaru gën a préparé parce que li nga xam ne moom la ñuy dem fekk ci fële tamit du caaxaan ligue africaine bu basketball ñu jàppoon ko aljuma fukki fan ak ñett ci weeru mars bi ñëw dëdmal ñu daal di koy dàkkandi ba jëmmi jamono ngir rek moytandikoo ci yokkuteeb lii di covid 19 bi ñu jàpp nag ni douane googa dina laale dimanche ak waa union sportive bu Wakaam Louga basket moom asfaale kon dee dajeel AS Thiès ak saltige ISEC ma nga jëm dajante Ahmed moo sandark bu Ndakaaru war a laale ak waa Sibaak loola kon dimanche la ëllëg Thiaser jiine dukk UGB nooy dee jongante bop US Rail AS Ville Dakar laale ak waa euh, Saint-Louis basket club ca Ndar ci jigéen ñi itam am na ay jongante yu nar ma tëgg ëllëg INSEPS mooy laale ak waa ASFO euh, saltige ak waa sandark bu Ndakaaru Mbour mooy dajalante ak waa CMT Ziguinchor ASC Ville de Dakar war a jongante ak waa euh, Développe ñu jeexal euh, Makumba ak football bi ca bitim réew. Hmm. Euh, saa si tembe Amiens ak Marseille ña nga cay jongante Marseille moo jiitu woon benn. nee nañu ëllëg match bi doon dox diggante Strasbourg ak Paris Saint-Germain dañu ko dàq ñu ndax corona ji moo tax ñu dàq ko. Hmm. ca Angleterre ñoom corona seen ngañ ñu neew football seen i programme. Liverpool bu Sadio Mané nga xam dañoo tegale ñetti ay défaite danoon dajante ak waa ëllëg lay nekk. Arsenal ak waa West Ham Newcastle mu nga jëm te Southampton Crystal Palace bu ñoom Cheikhou Kouyaté wala daje ak ñoom euh, Ismaïla Sarr waa Watford yooyee Tottenham ak waa Burnley ca euh, Espagne itam dina am jongante gu tar foofa xëccoo bu métti doox diggante Atlético Madrid ak waa FC Séville ñoom daano laale ak waa Real Sociedad gannaaw ba nga xamee ni waa Real euh, Madrid ñoo leen dooroon ca Classico ja ca Italie moom jongante yi ñu jàppoon diggante ëllëg a gannaaw ëllëg yëpp. dàq nañ ko. jërëjëf waaw kay. tour du web ci RFM. tour du web Abdou Diouf. ki ñu naan patient zéro mooy ki njëkk am coronavirus fii ci réew mi nee nañu wér na ba ñibbi këram moo ci des xibaar boobee ñu ngi ko amee ci igfm point sn coronavirus Sénégal ki ko fi njëkk am wéer na seen actu 7 point com di ko dëggal loole nag ay détails la yoo xam ni docteur Aloyse Diouf mii directeur de cabinet bu jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew mi moom moo ko xamle am na sax vidéo boo xam ne seen actu 7 point com mu ngi koy wone daanaka ay site yu Sénégal yu bëri dikkaat nañu ci Seneweb di ñu wax ni yeneen i cas yoo xam ne ñu ngi ko doon junju ca Foundiougne daanaka ñett ci ñoom di ay doomu Chine ñu ngi leen di xool mu ne am na ay xibaar ci ñoom ngir ñu gën a xamle ak ñii nga xam ne ñooy doomu chinois yooyee nga xam ne dañuy liggéey ca Foundiougne ci page Facebook am Imam Shaibatou mbay di wax ni dafa invité benn médecin boo xam ne moo demoon foofee ca jumaay Scat Urbam fa muy jiitee moom mu bàyyee ko bayaan bi bayaan bi mooy waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy jox boroom xam-xam yi ñuy firi lu jëm ci wàllu diine ji laata imaam di ñëw ngir xutba bayaan boobee nag ñu ngi ko def ci coronavirus bi ak ni ñuy def ba xam bu baax a baax boobu la jàngoro ni ñu koy mën a moytoog li loolee nag am na ay internautes yu bari yoo xam ni daanaka àddu nañu ci di ko rafetlu benn mbàkke mbàkke ak benn agent immobilier ñoom la ñu teg loxo ci almadi ñoom nag dañu doon doxantoo ay faux loo xam ne toll na ci benn million ak lu teg ci dollar loolee nag boo koy xayma yegg na ci benn milliard téeméer ak juróom-ñaar fukk ñett ci ay million ci suñu xaalis Presse Afrique moom moo ko xamle nee na nag daal dinañ leen teg loxo dik moo def li ni mel enquête baa ngay wéy JVE Sénégal mu ngi naqarlu dagg bi nga xam ne ñu ngi koy dagg garab yi rawatina ci bëj saalumu réew mi ci seen page Twitter jeune volontaire pour l'environnement di naqarlu bu baax a baax loolee nga xam ne mu ngi am rawatina ci àll bu Kossy nekk ci région bu Sédhiou mbootaay bi di woo nguur gi mu jël ay matuwaayam ngir yëf yi mën a dakk li ñeel coow li nga xam ne dox na diggante Aminata ture ak Bara Ndiaye am na leneen lu yees loo xam ne nekk na ci mu jëm ci wàllu 72 chargé de mission yi nga xam ne Bara Ndiaye nee na moom la président bu conseil économique social et environnemental tabb foofee ca kër ga na ci moom Bara Ndiaye waaye bi la yoon dafa indi yeneen xibaar yoo xam ne yéenekaay bët set point com nee na yu gën tàng la ca Mali premier ministre ba mu ngay dajeek jamono ji ak ay ñoo xam ne dañoo nekkoon ci l'armée bi te ñu taxawalaat boobule armée rawatina ci bët gànnaaru réew ma suñu sukkandikoo ci RFI point fr arobase tollante gi Jo Maron dale nag jam ci arobase dañu wax ci euh, li nga xamante ne moom mooy euh, impôt bi ñu baal entreprise yu bees yi ñu taxawal ak euh, start yi lu toll ci ñetti at duñu fayee impôt loolu nag nguur gi moo jël décision bu mel noonu rek ngir baal leen li nga xamante ne mooy impôt yooyu ngir ji mën di suqaliku décision bi ñu ngi ko fësal ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2020 bàyyee ko ministère bi yor finance ak budget kaddu gi ñu jox ko Abdou Khadre Diop moo taxawal startup bi di Own Lab Abdou Khadre Diop gis na ne lii dina wàññi jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel lii la wax Amadou Sabar Ba. ñun daal côté startup yi dañoo accueillir euh, mesure état Sénégal jël par rapport à. favorisation euh, écosystème start-up bi de manière positive mesure ñu gis tey nekkul mesure yoo xamante ne état bi dafa jékki saa rek joxe ko start yi par exemple dañoo participer benn événement boo xamante ne euh, hackathon pour euh, pour euh, proposer ay mesures yoo xamante ne day favoriser création start-up bi DER tamit def na ay propositions pousse de son côté léegi état répondre de manière favorable ci demande écosystème bi maanaam majorité pank yu état jël par rapport à start-up yi pank yoo xamante ne c'est fiscal maanaam koppar la dañuy wàññi Euh, maanaam l'impôt yoo xamante ne startup yi dañ ko war a fay par exemple startup yi léegi dootuñu fait impôt pendant trois ans startup pay entreprise yo xamantene investissement bu risqué la nekul business bu classique. nak la xaralé yi soppé dundu handicapé bi di Alioune jagne mom nag Defa sukkandiku rek ci réseaux sociaux yi ngir rek jaay li nga xam moy mooy kafem bi nak mu fessel ko ci internet loolu nak dimbale na ko bu baaxa baax ci li nga xamantene moy mooy njaayam muy def waye yemul sax fofu jot na taxawal benn site internet ndongo ka suñu correspondant bi nek fële ci jar jaram nak mom jaar jaaram uti yi ak yéen faral di gis Alioune Diagne di dund ab laago mu yëngu nag ci njaayum café ngir mën a faj ay soxlay boppam. yàlla dafa defoon ma feebar ñu dagg sama tànk ma nekk un handicapé mu metti woon lool ma teg café di ko jaay ma ni du ma sama loxo du ñaan dinaa ñafe sama laayaf ba amal sama yëfu bopp. bu dee njaayum café gi mi ngi ciy gis boppam dafa fekk ni Alioune Diagne dafa sukkandiku ci réseaux sociaux yi ndax moyen de publicité la ko daal di def. café googu nag ma ubbi ko ñëpp nag di ma romb njaayum kafe gi Alioune Diagne ni réseaux sociaux yi kat dafa jàpp ni mën na koo jural leneen loolee waral mu daal sukkandiku ci numérique bi daal di sumb geneenu projet. ba benn instant ñu ne pourquoi pas mu créer benn page ñu créer benn page commencé jël autorité ay interview moo dem ba tey ba nag site internet. Alioune Diagne lii di xarale yu yees yi daal di ko yóbbu nag fu soree sori mu daal di jóge nag ci jaaykatu kafe daal di doon administrateur site d'information. l'information au la banlieue mooy slogan yàlla yem ndax am na yeneenu mbébét yoo xamante ni fas yéene koo sumb te ci numérique bi la ko fas yéenee jaaralee. Chérif Chatol ci dëkk yi nga xamante ne sorowuñu dara ak frontière Mauritanie askan wi nag am nañu jafe-jafe yu bari ngir am réseau ci téléphone yi woote fa wala sax nga am internet jaarale ko ci téléphone jafe na lool Richard Tol Mamadou Diagne. fii si Richard Tol, nekk zone frontalière ak Mauritanie askan wi fi yeewoo dañuy jànkonteel ay jafe-jafe ngir woote wala sax ngir connecté ak réseau Sénégal yi li ko waral mooy opérateur télécommunication fee Mauritanie moo koy mu situation boo xam ni métti na Moudouba. kii di Amadou chef de village bu Salam. Salaam ferme 5 ak Modou karambay commerçant fii Richard Toll. boo soxlee toujours looy boy woote da ngay bi mu réseau Mauritanie rek dangay ngay woote bay sonn doo mën a jot yenn saa da ngay génn dem bay côté passé Mbilor jim Dagana nga soog a mën am réseau loolu nag daf na métti te ñun mën a connecté wu te loolu tamit neexut. réseau bi ñu jax sa doo ngay jikki-jikki rek xool sa réseau bi mu dem wala nga gis ñu def foofu benn erreur rek. bu fekkee mbir mi da leen métti kii di Maodo Diakhaté nekk commerçant te dëkk feesu Mauritanie moom mi nga xam ne mi ngi si Richard Toll si atum ba tey moom mile mbir mi daka arrangé ndax mi ngi xam ne ni bu bëggee jokkook waa Mauritanie xam na fi muy jaar ba amal ka. xanaa si côté Cissé rek bi dugg ma déggee Moulay Fana kay mën naa wax sama soxla ba ba fi trois jours kay. lii nekk ab si biir Richard Toll di sàkku ndimbalu sa sénégalais yi ngir ñoom ñi ñu mën a saafara mbir mi arobase filayem ci technique bi Malang Sonko ñoo ngi leen di gërëm ci déglu bi. bon santé tollante gi ñu àndaat ci ak soxna Awa leen excellent jàmm am na yenn groupe bu nit yoo xamante ne kër docteur daf leen a jàppee ne dañoo fragile jëm ci jàngoro yi coronavirus bu leen dalee ci ñoom lay gën a metti bokk na ci jigéenu wérul ñi amee jàngoro yu chronique xale yi ak mag ñi ëppal juróom-benn fukki at jàpp juróom-benn fukki at ak juróom waaye ci jigéen gi moom su wonee lor yaramam ni mu doon xeexee yenn doomu jàngoro yi dafay wàññeeku bu baax. li ya kon ñu jàppee ko koo xamante ne dafa fragile jëm eh, ci yenn feebar yi docteur Abdoulaye Diop. yéen ëmb infection moo ko gën a yomb ci moom ëmb bi ni muy demee ak modification yi am ci yaramu ku jigéen ki su ëmbee moo tax infection daf koy yomb maanaam soldaar yi am ci yaramam yi ñu xam ne ñoom ñooy tax su amee infection nga mën a xeex moom ci yaram bi ci jigéenu ëmb soldaar yooyu dañu wàññeeku dañu pour que yaramu ku jigéen ki mën nangu xale bi nekk ci biiram dañuy am benn degré de tolérance mais malheureusement wàññeeku boobu su amee dafay tax tamit yenn feebar yi dañ fay gën a metti ci ko jigéenu ëmb feebar bu mënti nekk su dalee jigéenu biir ci a doom ji bi mu ko wàllee doom ji mën a nekk ci ñetti fànn mën a nekk ci biir bi doomu jàngoro bi jaar ci ànd laal xale bi ñaareel bi mooy suy wasin xale bi di génnee di wasin mën na yaay ji mën ko wàllaale ñetteel bi mooy su koy nàmpal nàmpal bi tamit yenn xel doomu jàngoro yi mën na nekk ci soow yaay ji plus ànd bi di màgget plus ëmb bi di sore plus ngay jege ce jour accouchement plus ànd bi capacité bi mu am pour pour arrêter microbe yi dafay ko ci moom et donc infection soo ko amee fin grossesse bi mën a gën a metti parce que xëy na ànd bi dootul mën a bloquer microbe yi mu la war a bloquer normalement ak jamono ji feebar bi xew coronavirus bi tamit dañu war a fagaru lu ëpp ci jigéen ëmb yëpp bu dee sax ba waxtu wi amul benn saytu ci coronavirus jëm ci ba xam jigéen ju ëmb mën naa wàllu doomam te wut gynécologue yi di leen digal ne nañu fexe ba sàmmoonteek fagaru bu mat sëkk jaareele ko ci cet docteur Abdoulaye Diop. règle d'hygiène yi ñu wax ne dañ ko war a respecté raxas sa loxo sooy tisool yi nga tisool yi ci mouchoir wala nga tisool yi sa sa sa loxo raxas sa loxo ak saabu wala gel hydroalcoolique bi jigéenu bi dañ ko war a respecté particulièrement parce que ñoom feebar bi su leen dalee ñoom ñooy gën a nekk à risque que kenn koo xam ne xëy na ëmb jërëjëf docteur Abdoulaye Diop di gynécologue ba ajuma ji di ñëw ñu wax ci beneen poñ jëm ci bonne santé femme di wér gi yaramu jigéen ñi waaye fileeg booba ñu leen di soññati ngeen toppatoo seen wér gi yaram. gan gi Ismaïla jonn mooy directeur euh, réglementation touristique ca ministère du tourisme et des transports aériens sëñ jonn ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Makumba. waaw euh, ndax euh, mën nañoo xam euh, fi mu ne nii yan matuwaay mooy yi nga xam ni moom la hôtel yi war a jël ndax jàngoro ji gis nañ ni ñu ko fi dugal ñëpp bitim réew la ñuy jóge ku ñibbiwul sa kër boo waree dëkk ci hôtel ngay dëkk nan ngeen waxtaanee ak ñoom ngir fàggandikoo gi mën a gën a yaatu foofu. waaw jërëjëf d'abord maa ngi lay nuyu du nuyu seen auditeurs yëpp. Hmm. ci turu ministre bi nga xam ne moo yor wàllu tourisme di monsieur Alioune Euh, di rafetlu li nga xam ne moom la ñu dooree waxtaan boobu parce que tey jii rek la ñu amaloon benn ndaje boo xam ne dafa dajale professionnel du secteur tourisme yëpp ak ki nga xam ne mooy ministre du tourisme et des transports aériens ak ministre de la santé ndax ndaxte loo gis mu jóg rek daanaka nañuy déglu ñi nga xam ne ñoo ciy technicien maanaam mu yor wàllu am sëñ John. daa mel ni sa réseau baa ngi wàññeeku de. allo waaw boo ma waaw baax na baax na waaw waaw. voilà maanaam daanaka boo xoolee. Hmm. ñëpp ñi nga xam ne yor nañ ay hôtel fii ci région wu Dakar euh, mam même ba ci yeneen région yi sax ak Thiès yëpp tey ñëw nañu wuyu si li nga xam ne mooy wootewu ministre du tourisme nga xam ne dafa présider rencontre boobu ak ki nga xam ne mooy le ministre de la santé. Hmm. ànd ci ak technicien wu santé bi yëpp. ndax comme ni ma faral di waxe yu mel ni bu amee mu dal ci benn secteur maanaam lu am gën a am solo mooy nañu déglu ñi nga xam ne ñooy techniciens yi te technicien yooyu tey ñoo ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy professionnel tourisme yi yor hôtel yi nga xam ne ñoom ñooy nekk en contact direct avec les touristes maanaam li nga xam ne nag tukkee na ci waxtaan boobu ginnaaw bi ñu euh, euh, saafee euh, kii maanaam ñaaxee ñi nga xam ne ñooy hôteliers yi wax leen li nga xam ne moo war a nekk seen comportement manam tay am comité bo xamné ne nañ ko muy benn comité de gestion de la communication ndax yu melni nii bu jibee maanaam niñ koy waxé dafa am solo ndax bo xolé ku nekk day jug di ci wax te lu gëna bari nak niñ koy waxé yeen say day rëreul nit ñi ndax day dem ba nit ñi du ñu xam lañ lañuy ñuy donc comité da fay am ay li nga xam moy ay point focaux yo xam ci commission nationale bu mag bi nga xam mo nek ministère de la santé foofu lay nek ba nga xam li nga xam ne mooy matuwaay ñuy jël day dëppoo ak matuwaay yi nga xam ne mooy yi ministère de la santé digle te ci matuwaay yooyu noonu tey dafa naa jànge nañ ci lu bari ndax euh, ñoom wax dëgg li nga xam ne euh. procédé pour informer ñi nga xam ne ñoo professionnels yi mm-hmm.

Euh, dañuy def ay visite euh, inopinée pour xool maanaam ndax ñu ngi euh, conformé wu ndax maanaam seen cet gi dëppoo na ak li ñu digle hmm. kon mën naa ne lii nii normalement hôteliers yi bokkuñu ci ñoo xam ne sax waroon nañ leen ñaax naan leen yokk leen cet gi ndax cet gi moom dafa bokk ci li nga xam ne mooy seen métier. Hmm. boo xoolee li nga xam ne mooy gel antiseptique yi daanaka loolu bu hôtel boo demoon ñi nga xam yor loolu leen fortement ñu def ko ndax boo jëlee par exemple li nga xam ne mooy désinfectant yi aussi maanaam defe naa comme ni ma ko waxee hôtel yi mooy lieu yoo xam ne ci bés bu nekk rek cet googu ñoom dañ ko war a saytu ndax euh, touriste bu ñëw wala benn client bu ñëw fanaan ci néeg bu génnee rek néeg boobu dafay defaraat defaraat draay yi changé defaat kon noonu nga xam ne saytu cet googu vraiment ay waxtaan bi amal na leen solo ndax euh, au delà maintenant ci yi ñu doon def habituellement maanaam dañ leen wax ni ñu war a mën a def maintenant pour euh, faggandiku li nga xam ne mooy feebar boobu. Mhm. ndax boo xoolee boo jëlee ñi nga xam ne valet de chambre wala gouvernante yi nga xam ne ñooy dugg ci néeg yi maanaam xool cet euh, gi dra yi manipuler li nga xam ne moo nekkoon en contact direct. Mhm. léegi. monsieur John, vraiment bëggoon waxtaan wi gëna mais xamna damay dama dama lay laaj benn wala ñaari question rek ñuy la ndax euh, déggante bi itam neexul liñ bi neexul lool. ci walu ah. ci mi ndax euh, par exemple euh, tambali de jambat ni touristes mi ngi parce que gis nañ ci bitim rew ay chiffres yo xamanteni yu de doy war la yu xawa nit ñi ay compagnie xamni fimné ni annuler nañ wax dëgg yàlla euh, mooy li nga xam ne moo xaw a ñëpp ndax eh, nga tey euh, boo jëlee France par exemple tey mu nekk premier marché émetteur de touristes pour euh, sunu sunu dëkk Sénégal hmm. nga jël Belgique nga jël Italie nga jël Allemagne boo xoolee dëkk yooyu yëpp tey surtout France ak Italie vraiment dafa nekk dëkk yoo xam ne ah li fa nekk tey xaw naa xaw naa xaw naa raglu mais euh, euh comme niñ ko waxé manam tay ñooñu bu dee dañu leen da leen impacté mënu mënuñu épargner parce que boo xoolee Sénégal fii booy déglu rek gis nga ay rencontre yu bari yo xam ne waroon na xew ci ay hôtel euh, côté événementiel côté ay séminaire yooyu yëpp ñu bari maintenant commencé di annuler wala di reporter té report bobu kenn xamul kañ lay doon li nga xamné ne aussi euh, wax nga ko ci compagnie aérienne yi nonu la démé ci niveau mondial parce que organisation bi tuddu IATA mu ngi wax ni maanaam lii nii bu secteur euh, mën na yàq li nga xam ne mooy trente milliards. trente milliards trente milliards de dollars. trente milliards de dollars maanaam boo jëlee loolu vraiment lu am am solo la pour ni ko waxee maanaam day déterminer ñun aussi bi biñ ci am. Hmm. parce que boo xoolee bu dee dañu dañu dépendre ñun dañuy euh, euh, demlante ak dikkalante ak ñi nga xam ne ñooy marché yu mag yooyu kon ñooñu tey buñ ko yëgee ñun aussi dañ bu baax a baax a baax. mais comme ni ma ko waxee wax dëgg yàlla situation bi fii ak quelques cas yi ñu confirmé warul mën a tax aussi au Sénégal vraiment ñuy waxe noo xam ne day tax nit ñi foog ne Sénégal fi mu nekk nii kat wax dëgg yàlla ñëw foofu hmm. wóoratul kon communication bi comme ni ma ko waxee ci njëlbeen mën nañ ko bàyyi ak ñi nga xam ne ñooy techniciens yi mooy ministère de la santé nga xam ne dinañ wax askan wi nii ak ñi ngeen di comporté woo ñi nga xam ne aussi mooy population yi ñu bañ a jàpp ne rek

vraiment ñu topp li nga xam ne mu ñooy seen digle yi defe naa bu ko defee rek yàlla dinañu muccal ñun ñëpp. mais yaa ngi doon wax léegi waa IATA seen i estimation est-ce que Sénégal mën nañu am ay estimation par exemple. li ñu ñàkk ci wàllu xaalis wala ci wàllu tourisme li war a ñëw te ñëwagul parce que Chine gis naa ñu ni am nañ moins quatre-vingt-cinq pour cent ci ay touristes yu fa waroon a dem demuñ Hong Kong moins soixante-treize pour cent Italie moins seize pour cent Sénégal est mën nañoo xam moins ñaata. waaw xam nga ñun boo xoolee daanaka feebar bi mu mu duggsee fii yàggul. Mhm. ñun nag ñu ngi liggéey ak ñi nga xam ne hôteliers yi pour collecter information yooyu ndax euh, tey rek comme ni ma la ko waxee ñu ngi jokkoo ak ñoom pour xam vraiment li nga xam ne mooy perte yi nan lañ ko mën a évaluer waaye fi mu nekk nii daal mën naa ne wax dëgg yàlla métteegul métti googu parce que tey am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na nekkoon nañ fi déjà euh, te Sénégal situation taxul woon mu demee noonu comme ñooñu amul problème ñi nga xam ne nag maintenant waroon nañ ñëw annulation de voyage ci barewul noonu parce que tey Sénégal cas bi critiqué te defe naa sax ci ni ma déggee xibaar yi wala ci beneen rajo dégg naa benn cas bi nga xam ne euh, moom lañ njëkkoon gis daanaka wër na loolu yëpp aussi loo xam ne day dellu si confiance bi nga xam ne suñu visiteurs yi amoon nañ ko ndax loolu day wane ne rek am nañ benn système de santé boo xam ne robuste na boo xam ne vraiment nit mën na ñëw waaye tam wax dëgg yàlla matuwaay yi war yëpp mën nañ ko fi fekk ba nga xam ne mën nañ leen mën na leen musal ci li nga xam ne mooy jàngoro jooju kon mën naa ne estimation ñun defaguñu ko ndaxte comme ni ma ko waxee euh, instant bi dañuy door a jot ci feebar boobu waaye nag bu demee ba ci kanam nangam wala li nga xam ne aussi mënuñu ko estimer gu mooy intention de voyage yi parce que ñu réserver annulé mën nañ ko xam waaye am na ñoo xam ne dafa ñëw Sénégal wala dem beneen dëkk mais bu ñu fa déggee feebar bi rek mën nañu vraiment euh, euh, maanaam mhm. renoncer. ci euh, seen voyage boobu loolu yëpp doon ay yoo xam ne ay perte la yu yu doy yow directeur réglementation nga mhm. li nga yor bu mhm. fekkee juumuma mooy xool ba xam kenn ku nekk sàmmonte na ak yoonam yooyu ak auberge yi ñuy ubbeek yeneen yi nga xamante ne nii mais loolu ubbi woon ngeen ci ab xeex fu mu toll fi ne nii. ñun ñaa ngi sàmmonteeg règlement bi wala déet. xeex boobu moom dañ koy wéyalee ndax xam nga comme ñuy wax. maanaam une stratégie ne se dévoile pas maanaam boo xoolee euh, ñun suñu mission nekkul sax ñuy ñuy ñëw di di sanctionner ak yooyu mais dañu nga xam ne ñoo teguwul ci yoon ñu fexe ni ñu leen ba teg leen ci yoon kon loolu mooy li nga xam ne mooy mission bi lancé nañ ko defe naa mu am une très bonne couverture mais tey wax dëgg yàlla gis nañ ni ñu bëri ñu ngi collaborer ñu ngi coopérer ba ñu ngi ñëw vraiment parce que ñu woon ñu bëri dañ ne xamuñu woon waaye comme yaa ngi dëpp di ñëw pour régulariser au niveau du ministère loolu dañ ciy sant yàlla waaye opération yi day continuer parce que tey Sénégal dafa am intérêt ci li nga xam ne mooy réceptif am muy ñi nga xam ne gis nañ leen wala gisuñu leen ñëpp nekk ci normes yi te balaa ngaa nekk ci normes yi nag wax dëgg yàlla foog nga ñëw euh, def li nga xam ne moom la yoon wax maanaam nga régulariser wu. kon loolu mooy vraiment fi nga xam ne foofu lañ ci toll te loolu dañ koy woyale ndax euh, euh, semaine bii di ñëw rek war nañ dem fi nga xam ne mooy région Kaolack Kaffrine. Euh, Fatick ak jurbel vraiment pour wéyale liggéey boobu nga xam ne ñu koy def ci hôtelu Sénégal yëpp. Mhm. Euh, coow li ci mujjoon am ca Tëngéej saafaraw na léegi. waaw waaw loolu loolu moom xam naa bëri woon ay incompréhension waaye daal comme ni ma wax rek suñu objectif mooy vraiment fexe ba ñi nga xam ne xëy na xamuñu woon wala nekkuñu ci yoon parce que xamuñu ñu fexe andiwaat leen. loolu saafaraw na am déet. c'est très bonne voie. Hmm. c'est très bonne voie. très

am na nag ca Léona Niassène imam ba ni lépp nag yar bu dal rek jóge ci yàlla sunu borom ndax càggante ba nit ñi di ñëw fii di ñu wax waxi daganal góor jigéen ak imam boo xam ne daa wàcc min baram daal di koy jox ab docteur bu xam-xamam màcc ci uh, wàll wi mu yeggale nag uh, bayaan bi yem fii di leen gërëm bu baax a baax ci kanam tuuti kon Pape Bess Diba 23h ab flash minuit RFM News Maroon jërë ngeen